xanaa kontaan rek kontaan trop alhamdulilah di sant yàlla bu baax a baax di sant sama ñaari waajur ndax ñoom ñoo ma jël yóbbu ma daal bu ma yóbbu woon faneen tamit kon boobaa lii ma am tey duma ko am di leen bu baax alhamdulilah di bu baax a baax di ñaax ñeneen ñi tamit pour ñu xool ci ñoom ndax ñoom tamit ñu mën a yóbbu seen doom bu ëllëgee ñoo am lii ndax bu njëkk dañoo yaakaar ni daara daal daanaka booy jàng daal da ngay perte daal ndax école ba da ngay gis koo xam ni day am ay diplôme di dem di tukki ñu naan njariñ lii la école bi génne moom ko nag di sant bu baax tamit euh, monsieur le maire ko sant bu baax di wax ni bu Moussa le maire yep melon ni mom bu boobaa daa Alxuraan dina gëna jol ci kanam jang mom du di yok sama alio rek inshallah